deretu coon mooy daw suma yaram sama deret dawul ci deret ci yaramu jot coon sekk moo ma jur man fu ma mënti dem drapeau coon sekk lay téye fu ma mënti dem drapeau Ballago drapeau Faramare lay téye donc pour signature coon sekk ala kulli haal mu neex ma bëgg ko moom lay porté promotion boobu bi euh, on a préféré tegal ko presse bi ñu am ci benn aperçu ba suba incha allah ñu démarrer vente yi demain yàlla xam na ni ni ñu koy jaayee choix bi man c'était ab man du man maa ko choisir staff bi doo ko choisir donc man waaye lañ may ma ñëw way bàyyi leen ñoom ñu def leen war li ñu war a def parce que nag équipe la du man kese y'a beaucoup beaucoup beaucoup de am nañ collaboration ci album ku ci mel ni Momo Dia def nañ jiw maanaam morceau bi ñu way Papa Diouf Dieng mag Momo Dia def. mu morceau bu neex nag du ma xaar kenn wax mu neex lool ma koy yëg lool loolu moom mooy télépathie beneen chose yi mooy korox man ak Pape lu ñu yëgoo man ak Pape suñu yëgoo duñ ko waxee fii léeg-léeg ñu waxtaan doon tey ko parce que suma papa la te man doom la donc euh, le choix moom noonu lay demee choix wu désolé titre bi ndax dama ñëw génne désolé pour euh, pour continuer non euh, le respect le respect dafa nekk loo xamante ni c'est primordial respect képp kuy dund war nga am ci xale bu ndaw sax donc le choix du titre respect c'est un bon choix ah désolé du titre de dama woy attention dama woy désolé du titre dama du du l'album s'appelle symphonie daf ci am titre bu tudd désolé da ko bëgg a ndax ndax dama wax ko dëgg la dara dama nga jënd ko man daw ma saale ay der waaw. papa Thione bàyyi rek kilifa moom moo sañ wax li ko neex ak ni ko bëggee ak fa mu koy waxee ak ni mu ko neexee te duñ ci def lu dul ànd ci topp ceeg moom ndax mooy suñu bàyyi mooy suñu kilifa moo ñu xarala yoon bi mais pour côté sama staff je vous le dis carrément je suis trop fier de vous avoir comme staff. je suis trop trop fier de vous avoir une fois vous faites parce que man kese mënuma dara man kese mënuma indi sa bopp bi c'est grâce à vous que je suis devenu le Wally des des le prince de Faramareen vraiment chapeau à mon merci à vous. di waay jaral na leen xeex ma jaay